sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin salaamaaleykum mbokk setaan seetaan ñu ngi leen di nuyu beneen yoon amaan mbégte dellu siwaat comme ni ñu baaxoo di ko defee ak sam samedi bu jot ci waxtu wi Ah, samedi tey ñii nag di samedi bu njëkk ci koor gi ñuy baal ñëpp rek ak di baal ñëpp ak di ñaanaat suñu borom mee ñu rek ñu dugg ci koor gi or ko ci jàmm ak selaam ñu nangul ñit suñu jàmm yàlla jégal ñit suñu bàkkaar ah, musal ñu ci seytaane li ñoog lépp loo xamante luy jaxase suñu xel la ba ñu am ay rëq-rëq ci koor gi ñu ngi sàkk suñu borom yan na ngi suñu borom musal ci loolu waaye musal ñu tam ci accident làmmiñ defal ñu jàmm tawféex yokku ak yokkute ci réew mi nuy président Adama Barrow di ko ñaane jàmm salaam ak ay soxnaam ak képp ku ne ci nguur gi di ko jàppale waaye duñu fàtte njiitu kër gi alhaaji Mohamed Dia ak ci kàttan géeg mën gi ci njaboot gi ko yàlla teg yal na ko suñu borom oyofal ci kawam ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokku ay xéewalam yokk ay buntam ci daraje Mawlana bu ko defee rek ma nuyu la bu baax yow mi ndokk leel ci weeru koor nga ni ma mu bëri ngëneel waaw waaw ndokk leel ci weeru koor ge saxru ramadan mu bëri ngëneel yërmandeg njëgal njot ci safara mu ëmb weer wee seetal bi ngëneel kooku nag dañ koy ubbee rek ah, li nga xam ne moom mooy programme bi tey xam ngeen ne ñu ngi ci weeru koor di samdi bi njëkk ci koor gi xam ngeen ne fan yi yëpp macha allah ñu ngi koy waaj eh, ñi dugg ci nag eh, bis bii nag di samdi boo xam ne nii eh, bi koor gi jógee doo rek léegi ñu ngi doog a am yéen programme di wax ne weeru sant la weeru xéwal la weeru ngëneel la weer la woo xam ne ñu ngi koy sante suñu borom ndax daaw ci heure bii biñ fi taxawee eh, di sant suñu borom ci lim ñu defal ñu fekkee ko eh, ndeysaan lañ ko ñaanoon nangul nañu ko ndax ñaanoon nañ ko ñu fekkee eh, beneen at muy ren ji kon nag ñi nga xam ne fekkee wuñ ko yàlla na yàlla oyofal suuf seen kaw sunu xel suñu xel yëpp dem ci suñu papa daaw ci heure bi mi ngi dund ren ji fekk ko fi yàlla na ko yàlla yërëm waaye tamit yeesal yërmande ci mboolem ku fekk ku fekk bar sax di wax ne rek yàlla ci boppam moom ci boppam moom moo fonkal boppam weeru koor ba di ko fayal boppam kon nag jàpp naa ne tey weeru koor wi weeru sellal la weeru ngëneel la weeru woo xam ne la lépp lu ci waaye def ci lu baax dañ koy ful weer la woo xam ne weeru promotion la ci jullit yi ndax lépp lu ñu doon def rek dafa mel ni dañ koy yokk ba nga xam ne macha allah kon nag yërmande muy fukk yu njëkk yi njëggal di fukk yi ca digg ba waaye goreel ci safara nekk euh, euh, euh, fukk yu mujj yi loolu lépp boo ko boolee nag lépp rek yiw la tëj nañ bunti sawara ubbi bunti na loo def ci lu baax yàlla fayal la boppam saraxe leen joxe leen ñam defe leen eh, eh, eh, lu baax naafila leen yokk leen seen i taxawaay sellal leen muur leen seen eh, yaram waaye tamit dem leen di julli ji ci jàkka ye di julli ji ci jumaa ye di ko def ci waxtum mu nekk lu am solo bu paasee nag jeexital yooyu muy def sa yaram mooy mooy tax nga xam ne yow sa koor nangu na nga mën a waajal déwén kon ñu ngi ndokkeel ñëpp di njiitu kër gi di ko ñaanal jàmm ndokkeel njiitu réew mi ak mboolem ku ku nekk ci réew mi rek ñu ngi lay ndokkeel rawatina samay mbokk samay soppe ndax xam ngeen ne programme yu bëri ñu koy bégee kon képp koo xam ne soppe waagaan show nga ñu ngi lay wax ne déwénati ay ca ñaan loolu am na solo euh, bu ko defee rek euh, du ñu guddal ci koor gi la ñu nekk xam naa nag ñëpp doog nañ jamono yi toog euh, def seen lekk yu em rek di xaar reer ñu indi leen waa Ganso ree leen ngeen ba kontaan ba nga gis ne seen i lekk yëpp ay tas. ngeen mën a lekkaat. en tout cas maa ngi koy jox sama xarit sama soppe. sama nijaay sama xarit alaaji Matar Fall borom saf-safal di ko wax ne rek maa ngi nuyu njaboot gi yëpp ay ca ñang baalu doxalal waaw di leen fàttali rek ah, saa yu ñu dogoo ba pare ba dem ci kaw kiiw ndogu bi ba pare dinañ ñëw am ay drama sketch kër waagaan gu tas ah, di wax rek ñu bëgg a indi seen i advert yëgle seen i yébaane yi ñëw ci drama bi incha allah rabbi ngeen jàpp si ndax yomb mi ngi toj réew mi waaw bu ngeen bu ñëw fii ngeen ñëw ci waagaan soo bi su ngeen mënta ñëw si waagaan soo ngeen ñëw ci sunu gàlle bi mhm. lépp rek luy wane ay matériel la loolu am na solo kon ñu dem seeti fossé bi soxta del si mhm. sin ma ngay nelaw bu yewoo yi jiin bu yewoo samar yi jiin ñu tàcc bu baax a baax suñu sobraay si tey kan la honorable Ousseynou Dabo ñu may ko loxo bu baax a baax mu dugg si mu ñëw ñu fas yéene waxtaan ak moom ci koor gi ak nu mu koy waajale ak eh, waa UDP Mr Dabo you welcome. asalaamaaleykum. waay yéen. Dabo Jula. waaw. naka yendoo alhamdulilah yéen baal maax waaw yàlla yàlla boole baal amiin suñu maam ji ndeysaan hmm. yàlla ko yàlla yàggal waaw waaw li la yàlla di ko ñaan mu yàgg fii naxa kay te wér hmm. mag mag mag cib cab réew paa bi ngi nag jàmbaar la de tam mani hmm. dam ko bëgg waaw dafa or salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah barakaat honorable Sirango be jëlee ba. Sirango mu ngi ne. waaw waaw. xanaa gisul si mhm. toog bi. nga Sirango jee ah, kay. bisimilah. Ah, mag dikk na. Ah, alhamdulilah rabbil alamin. honorable. ngeen kontaan. ñu na mun la sama maam da da da da ma la ma la raw am nga ko xam ne sa xarit la. su taa bu nekk yaa ngi ko eh, yaa ngi ko gis kooku sa la dégg nga tey dama war a wax ak tapet yi nga xam ne waaw tapet tapet tapet yi ñi xam ne ñeme weeru koor bi ñi ragal ni ni ma nice natural because ñu xam nga weeru koor suñu suñu weeru koor la soo ko soo ko dee soo ko dee wax danga dee danga dee kontaan moo tax suma suma xol bi yëpp fu mu nekk dafa seeda ok dama am suma sukur ma buga ko seedale si dëkk bi yes so dinaa ko sedale, ku nekk ma jola because am na ñoo xam ne ñemewu weeru koor suñ dee lay den dee lay weeru kom daal ñoom amuñ sukur du mun a or te loolu duma ko nangu yes yow de at bu ne nga def ko yes. ak ci yonent bi. be mbool be kontoon naa. melo mu ngeen nuyu mbooloo mi yëpp. nga yaay compagnie lu be kontoon naa. mu ngeen nuyu yaay ko be kontoon mu ne mu ngeen tamit képp ku nekk ci biir UDP nekk ci memba mu laa nuyu. mbaa fële ko congratulation. mu ne mu ngi leen di wax ndokkaleku. Mm. kaatu mais mais sunkaro ko na jàmm. mu ne ñëwee ci biir koor wi nag. sunkaro man man diya de. mu ne weeru koor neexu de. katu ne bɛ sonkɔrɔ kɔnɔ. mu ne bu duggee nag ci biir weeru koor wi. Hmm? e ñanta bamba nali. mu ne dañu war a góorgóorlu. ani ma woo fɔ dɛ. Ah, ani ñanta bamba na. bamba. ma woo fɔ. ma woo fɔ i ka nana kɔmɔ tɛ ɲa i fana. Ah, war a dëgër góor. ah, ah hmm. ni taara yi mu kɛ wɔ ten. mu ne yow Eh, yanta bambam mu ne da nga war ni ma bambam mu boo dëgëree ni ma bambam mu boo dëgërut eh? ni ma bambam di ningol men bey kono mu kon xale yi dañu yaafus yow xam na lu hmm. ni kor bi mu yàlla sukaro na ye mutay ba itulo te itulo hmm. buka buka fenge buka moye eh. itulo buka moye ne ne ko sunkaro ye muta mm. telo buka moy mm, sunkaro na muta wuma ma ah. ko muta wa ah, ne wo tambeta mune buñ ci buñ génne ci loolu nga sali ke mune mu nuyo nga sali ke sali mu ngeen julli mbatu ngata ane ane mbatu mbatu ngata alafta yablalen taboko eh, eh, ande ande alafta eh. yablalen yamale kudu sa moram yamba ko jëm woor wax lu nga ko wax dal bay ba suwa ko nay ma sale ba ka eh, eh, ah, ah. mu dana sali dama ko dimbale soka sokaro ah? mu ne mi na din do wala mu ne mu ngi julli ci yonente bi ane bat bu dem hani ma fole e ka nan no ko wate sunkaro kono mool ñanta sali lale mm-hmm. dinningoli ñanta sali mu ne si weer koor bi dañ war di julli di jaamu yàlla <laughs> ah, ah, ah. nga wole foye nga wole foye mm-hmm. bari ni ko e bo ka sali i be sunkaro la be sunkaro wo mu wo mu mun te mu ne musta gis koo xam ne daf naan dama or te waxtu bu jotee doo julli doo jaamu yàlla wo ma mbete ah mu ne ndax xam nga ne loolu baaxut mm-hmm. ni ma sali mu ne boo julliwut ye sonko ke mu nga ne yaay or ila sunkaro bo ka muta mu ne kon na xam ne sa or gi jàpput ah waaw mu tooñaale. mu ne loolu mooy lii dëgg. doolu bee jee. mu ne bu loo loolu moo ci ka mira dool be jee ka mira ko mu loolu mooy dëgg moo ah, tax mu ne ma wo fo mm-hmm. am na nit yoo xam ne dañuy mm, am na nit ñoo xam ne ci nit ñi dañ jàpp ne weer koor bi de pour nga ñàkk a nga ñàkk nan naan a lekk kese la ah di wonte mu ne du loolu de ala mu too <coughs> mu ne yàlla la jàppee soo jàppee yàlla mu ne boo jàppee yàlla. danga nga war a xam kan mu ne bu dee yow danga ne da nga gëm yàlla te jàpp ko ngoyaanu ci moom danga nga war a xam ci ki nga jàpp na kum doon. sunkaro siyaata woto. mu ne or. eggale ko. or dafa bari. suuka ah. sunkaro tambita wala mu ne suukar si léegi moo génn moom la ñu. fadang mbat. billahi you so watch it ko le sukar be gis ni mu ne sukar biñ gis ne mbaa mu tala nga samba state house wala mu ne soo gisee bu tee ko nii daf ko bëgg state house joko suma doom bi mu ne joko doomam président Adama Barrow ragal weeru koor mu ne ndax xam na ne président Adama Barrow dafa ragal weeru koor ah so ma xam naa ko mu ne moo ko na ko suma doom la xam naa ko mu moo ko dafa ragal weeru koor mu ne xam na ne ku ragal koor la soo jotee sukkur bi mu ne moo tax su ko sukkar si fekkee fam ne dina xam lu xew bon su weeru koor jotee mu ne eh, président Adama Barrow saa yu weeru koor jotee du dee wax mu ne day mu ma du wax ñeme wul weeru mu ne xam na ne président bi ñeme wul koor. mu ne bu doog jotee rek. soo koolee nga am soo ko koolee di nga ko am. waaye su fekkee weeru koor bëccëg bi mu ne waaye bu ci bëccëg bi la. ko am doo ko ah? du dee jël koor mu ne du jël koor. dafa ragal weeru koor mu ne ku ragal koor la. joxal ba ko sukkur bi. Hmm, mu ne bii eh, eh, nga jox ko. suma parti ñoom ñu seedoo ko. ah UDP maa ngi bi jox ma yóbbu ko. ah mu ne bii su mm-hmm. si nag. waaw képp koo xam ne nga ci UDP yow am nga ci wàll ci nga bokk. nga jox ko kii. aji yam seeka aji yam ko aji yam seeka dina ko séddale waa UDP. Eh, soo su fekkee nga jox ko nga wax ko maa ko jox. mu ne bu ñu fa fekkee aji yam seeka nañ ko ko jox ne ko honorable Ousseynou Dabo. Eh, moo ko jox mu séddale ko nga séddale ko UDP bu kenn manqué. loolu laa doon mu ne loolu la bëggoon a tey ñoo wax ko ci ci koor gi. ma bëgg ngeen xam ne. mu ne ñu bëgg nag réew mi yëpp xam ne. ñu ngi or. mu ne moom mu ngi or. ma ragaluma koor mu ne moom ragalul koor. man mu ne moom ragaluma koor ragalul mu ne daf de nama yàpp rek. maa fee. maa fee. ak <laughs> ah. mu ne ak damada ñu ne aji ma bu jot dañuy def mbaxal këram. li ma naxare si li ma gën a ne takusaan bu jotee. mu ne bu five jotee. ba gaay di saaf ganaar. ba gaay commencé di fry ganaar yi. ba mu xeeñ ma. ba xeeti ganaar gi dugg ko loolu neex na de. mu ne torop. ba saaf ganaar bi. mu ne bu saafee ganaar bi ba pare boo déggee cus. ba mu ganaar bi ñu sànni ko ci diw gi rek loolu neex na balaa ngaa di xam loolu neex na. mu ne balaa ngaa xam ne yow mii loolu lu neex la. Eh, eh, nga or bétail boobu eh, nga or gis ñu ngay def loolu. nga gis ñuy fry ganaar. wala nga jege fuur mu ne wala nga jege fuur. mu lakk a je mburu. lakk mburu mi mburu bu tàng. mburu bu tàng boobu. Eh, eh, mu la mu xeeñ la. Eh, boobu boobu moo daxa lu nekk. dàq nag lu ne ci koor gi. wala nga ro toog nii. mu ne nga toog nii. nga gis kuy beñe. nga gis kuy da lakk panket. bi mu xeeñ la ba xeeti panket gi dugg boobu neex na. mu ne boobu tam neex na. loolu la am ceeb bu ñu ba ñulu ko. Ah, boobu duma fekk. ani la barabara eh, <laughs> ñun dañ ñeme weeru koor ah, <laughs> weeru koor sin ma nelaw bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar yi ji waxoon naa leen ne da ngeen gis ay caalit du gis ngeen du gis ngeen du gis ngeen lépp ah, pour koor gi la amul problème <laughs> kon ñu nuyu bu baax ne ne madame c'est euh, mm. madame Dia mm. ne ne sekk sekk si gànnaar madame Dia ñu ngi lay nuyu yaay imam yaay Omar mm-hmm. di am mbégte ci yow lu bari bari ci taxawaay am solo bi mu taxaw di jàppale bunum këram di jàppale képp ku fi liggéey ñu ngi lay sant di la gërëm ñaanal lak fan gudd bu ànd ak wér te yàlla barkeel sa njaboot ci dara gi Seydina amin yaa rabbi amin ah, bu ñu ci jógee rek ah, ma nuyu sama waa kër ci sanca ba mama mu Njaay sama yaay booy nga xam ne ndeysaan moom damaa jabote jabote sama njaboot yëpp yaa booy guddal fantaan tànd ak wér ndey Fatou maa ngi lay bëggee lu bari sopp la jéeri nuyu ma may mun a sama doom ji nuyu Jeynaba Ngom sama taaw bu jigéen di nuyu Xaadim Ngom waa Ngom bala njéeme seen di bu baax a baax Ngom sa seega fara mi ci jógoro mi ci pale sama ne mi ci rirum géej maa ngi lay nuyu mbokkum ndeyu Papa Laay Ngom waa Ibrahima Ñang maa ngi lay nuyu lu bari di nuyu Hasanatu Ah, di nuyu Khady Niang mu ndaw mu waagaan di nuyu Khady Niang mu ndaw bu ah, Ali Niang di nuyu Khady Niang mu ndaw bu Wara Niang ca biir Kaama ah di nuyu Khady Niang yëpp nag di am mbégte si ñoom lu bari Niang Baalo. macha allah am na solo lu baax di nuyu sama waa kër comme ni nga ko waxee rek. képp ku mhm. fay yeewoo ñu ngi lay ndokkeel. jiital ci sama yaay ju baax ji yàlla guddal fanam ak su mboolem sama yaay sama yaay Kumba yaa Khady Sine yaa Aji Sall. yaa ji Sall ñu ngi lay ziar di la ndokkeel baax ak a bëggoon suñu papa borom baax la moom yaa ji kontaan nañ ci yow baax di nuyu tamit képp koo xam ne rek yaa ngi kër laaji këru jokaadu fële ci suñu dëkk ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen wax ne ñu ngi leen di baalu ak di baalu ak suñu mbokk yëpp suñu yaay aram faal foofu ci Sinthiou di ko ndokkeel di nuyu a ami ñang suñu rak di nuyu faat ñang waa baaji Ester moom bàyyiwuma kenn yaa ramatulaay Eh, Diallo yàlla na sa jàmm yàgg moom lu xew rek dina ma indil taranga yaa rahmatullah yàlla na sa jàmm yàgg ak mboolem ku nekk Badji Estate ah aussi ñu ngi lay nuyu nuyu waa kër gi su ma limee juum waaye kontaan naa ci di wax ne nag eh, ñu ngi nuyu baax ama seen xam nga temps suñu programme bi amoon penc bi taxawaay bi mu ci am ak ñoom ñi ñoom biigee ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañ leen di ndokkeel di nuyu eh, ki nga xam ne moom mooy suñu xarit Yaama Ndour ca Westfield xam ne mooy taxawaayam ci bis bi ñoom al euh, am Jóob ñoom ñëpp suñu limee jum kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax di leen ñaan yàlla defal leen jàmm donte nag euh, euh, ñu ngi ci koor waaye terewul tam ñu bàyyi leen xel ndax su taxawaay suñu diggante yéen weesu na lool ñu ngi jaajëfal mboolem koo xam ne rek jàppoon nga ci bis boobu alam ñaan baal waaw ñu daw rek dem seeti ubbite sola ba foofa ca njàmbur mhm. teewaaye njiitu réew mi président Adama Barrow mhm. ñu dem seetaan ko te dellu si aca ma ngay nelaw bu yeewoo xalam wa ñu sant bu baax gërëm président Adama boro yalla dafa def na dañu demon jambour dem fekke ji uh, ubbite gi nga xamne mu ngi ko don ubbi uh, lolu di sola waye mënuñu am time nak fo pour wax ak moom moo tax tey dañu ñëw sét ci ko fi pour waxtaan ak mom uh, ñu wax ñu nan la xalaté pour ubbi ben bobu projet bu am doole monsieur président wa wa you welcome lel président wé du si loxo yi daje loxo yi daje président wé du si loxo yi barke rasulullah dégg ngeen ko am ku ne soxla war a seet bu la seet bim borom de muy neex muy naqar yaay borom dëgg la ah kookoy góoru Fatoumata Ba Baro ah kookoy góoru Sadio Mballo fo ah borom kiw tv ak wow. Ya Yusuf, Yusuf la, مير مسافر تلك يا يوسف Yusuf, لا واو مير مسافر تلك يا يوسف نول وعليكم السلام baax a baax a baax a waaw koor gi jàpp ko de déedéet rek lu koor de ala Cissé Cissé ngaari maa demee anam chief protocol. mu ngi nii eh ana alaaj ah déedéet mu ngi ci gannaaw ah mu ngi ci bismillah bismillah Mr President ndax may nga ma toog. waaw mun ngaa toog. waaw bëgg nañ la de. barki yonent weeru koor bi tey la ñaata fan. am ñeenti fan. kon weeru koor ren bi yéex na de. yéex na kay ñaari ñaari fan ñaari fan. xam nga dafa am foofu fu jamono di toll. Hmm. bëccëg bi mooy gën a yéex guddi gi. Hmm. ñu ne weeru koor ren bi dafa tombé bëccëg bi gën a yéex moo tax bi naqari métti. <coughs> weeru koor ren mi dina dina yàgg de. Mhm, dina yàgg kay kon yaa ngi yëg. dina yàgg trop man déggoon ci ki ma ne yow da nga xaw ragal koor yaa ngi koy bëgg a firndee de monsieur président. non ragaluma koor sax. Mm. waaye xiif ci boppam laa ragal. Ah, bokkut ak koor. ñu ngi nuyu waa QTV. mu ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu ñëw fii. mu ne ñi nga xam ne ñun ñooy waa QTV ñu ñëw tey seet si ko. i taxaw yi lan la caméra la wala nit. waaw nit di da ñu ngi koy oyee maam Cheikh Ngom. nag koor gi jàpp na ma nag. koor na jàpp na gisoo caméra. ko ni yaakaar de. gisuma caméra de. lii la loxo. Ah, ah, ah, bu baax di la siyaar. ñu ngi nangu ndokkeel gi bu baax yow ñu ngi lay di la siyaar. ayca bisimilah. waaw tey nag dañu ñëw seet si la fas yéene waxtaan ndax réew buy dox. dañuy fexé nak faram-fàcce ak tamit euh, yébaane li nga xamné non la réew mi di doxé té monsieur président euh, lu way waaye gisadi di bu gisee ne ne ne ngi mm. nga gis ci yëngu yu am solo yi nga yëngu ci walum tali ruq ruqadi ci bir dëkk bi yemoo ci lolu barki de mo ñaay nga ubi euh, solo bu am jom tamit bu yaatu fele ci njambur mm-hmm. munuñ ñona am nag time pour wax fofu lañ bëgona a wax moo tax ñu ñëw ci la xalaat waxtaan ak yow nan la xalaat bi ñëwé jërëjëf mm-hmm. li ngay wax loolu lay waxaat rek ah. solo bu am jom ah, sale ci njàmbur mhm. loolu am na solo mhm. suñu yéene mhm. ëpp na loolu dëgg la xam na ne man Gambie bi ma koy jël waxoon naa leen ko waxoon naa dama ñëw pour liggéey ñëw ma fur fo la te balaa maa bàyyi réew mi àll am kuréen hmm? ñax gi day am kuréen dëkk gi day am kuréen mm-hmm. biir géej gi dana am kuréen waxuma malaa biir kër yi mm-hmm. ak biir néeg yi dëgg la loolu nag yéen gambien mm-hmm. a ma jàppale mu am dëgg la man mi bet laa am ak góorgóorlu fexe mu am waaye yéen a yéen ci na mën a jàpp mu am réew nag buy dox waa réew mi ñoo koy doxal di leen masawu ndax ku xam na weeru koor dafa metti te dégg naa coow li ñii ne diwlin dafa cher. Mm-hmm. maalo dafa cher. Mm-hmm. leneen ak leneen dafa cher. Mm-hmm. waaye boo xoolee Afrique sous-région bi fii ñu nekk nii. amul kenn ku ñu gën a yombale price. donte seer na. waaye ñoo gën a waaye ñoo gën a yombale ñi ñu war ñëpp ñu ñoo gën a yombale. li ko waral nag mooy suñ taxawaay dañoo fexe ba bagage yi bañ a yokk ah réew yi ñu wër. ñoom ñu gën a seer le bagage. ñun nag loolu taxul ñu toog di nelaw. ñu ngi góorgóorlu fexe nañu xoole ba bagage bi gën a wàcc. ndax nit ñi sonn nañ. ku ne xam naa ne jamono neexut. kon yaa ngi yëg tawat bi loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy waajal. pour xool nuñ koy doxalee mu gën a yomb ci nit ñi. suukar wàññeeku. ndax mm. suukar dafa neex. waaw maalo bi tam wàññeeku. maalo bi wàññeeku. diwlin bi wàññeeku. Mm. soble ak pomputeer wàññeeku. Mm. loolu yëpp ñu ngi ciy taxaw. seer jën seer yàpp seer ah, yëpp des na hmm. sukur dafa baax ci weeru koor. Hmm. te yow balaa nga xam ne sukur moo baax. Hmm. ana sukur ak nga jël bisaab bu xonk bi. xooj ko ba mu xonk cur. ah wonjo wonjo. ñun wonjo ñun ñun bisaab bu xonk lañ xam. bisaab bu xonk bisaab ni ñu koy ci Pël. Ah, boo ko xoojee ba mu ah, nga ne ci pay sukur. ngay yëngal mu naan kerej kerej. moom suukur si moom moom suukur si. nga naan kerej kerej ba mu yàgg déggatoo dara nga xam ne sey na. Hmm. gis nga boo ko naanee. Hmm. ba mu dugg sa nenge ñi. Hmm. ba jaar sa pro gi. nga xam ne weeru koor metti na. dëgg la deleen ko naan bisaab. noonu lañ koy defee tam si ay soow ay caakiri yu demee noonu. suukur xam nga ne baax na ci caakiri. fajar gi rek nga jox ñu jox la siwa soow. soow pire. soow pire nga gàddu leket gi rek yëgat moom. waaw ah, ah, suba yàlla boobu. nga naan ko giraaxati giraaxati giraaxati. Hmm? ba mu xaaf nga teg nooyi tuuti. giraaxati mooy lan. ah boo koy naan waaw gullox gullox ah, waaw nokki tuuti. toogaat tuuti. Hmm. yëkkati waat leket gi. Hmm. giraaxati giraaxati giraaxati ba mu des tuuti nga teg ko nale. naan soow piir lu def ci yaram. dafay mokk yokk wér gu yaram cuuraay gerte baax na ci soow baax na ci ci weeru koor ndax gerte googu dafa baax ci wér gu yaram da lekk cuuraay gerte soo dogee naan leen fonde fonde tam baax na baax na man fonde laay dundee bu ma dogee damay naan fonde ba suma biir bi wër ma mm. ah. man nelaw ñeenti waxtu mm. su ma eewoon nag doog a jël giraar gi nag xar ko ci digg bi mm. ah. wax ko ay maamam moom gi moom ginaar gi te xam nga loolu ni ma ko bëggee noonu la ko ñëpp bëggee moo tax ma bëggu ñun ñëpp ñu jàpp ci ñu dimbalante weeru koor wi ñun ñëpp ñu dimbalante te yàlla tax mm. ñiy jaay ci marché yi ñu wàññi price mm. bañ cee teg coono mm-hmm. ndax rew mi ñoo ko bokk ñoo war a dimbalante dëgg la dañu gis yenn président ni balaa ñuy toog dañuy digge lu nekk buñ toogee rek toog duñ def dara waaye yow baro ba nga ne tey dinaa liggéey ci réew mi boobu ma fi jógee lépp lu ma fi def dañ koy wax dem mu njàmbur laa jógee waaw loolu laa gis xeeb ko lool. Mhm. ndax li ma plan ëpp na loolu. di nga gis feneen ak feneen ak feneen. fi mu nekk nii yoon boo dem ñu ngi koy plan pour pour pour tali ko. waaw yoon bi génne Alain Franco fële ji Kanefin génne ji Jos Wang xamoo sax li ngeen def. te loolu dañ ko xeeb. Mhm. te am na dégg naa bu dugg biir Ibo Town jógee boobu boori Sangom si la dem képp ku soxla yoon fii ci Gambia. Mhm. xamal na ñu ngi ñëw egsi na ñëwaguñ moo ci waaye ñu ñëw. ñu ngi ci kaw allah. fu weer wi fu fu fu fu. Mm. des na ten minutes fukki minutes. képp. Mm. Hmm? Mm. de bari na de. jërëjëf njiit. jërëjëf monsieur njiitu jàmm njiitu salaam. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi waaw am na solo. waa xam nga ndeysaan kuréel moom. Mm-hmm. mo xam solo la mo xam kuren normal la ak lu meuna xew dafa bax te njàmbur dekk bu mag la ci san la mhm. tay buñ fa defé lu mel ni mhm. ak solo bi ni mu reey ak yi mu wara gaddu lepp mhm. a ah, yaakaar naa ne boo amee ñetti gox ci réew mi rek courant dootul manqué te Barrow nag gis nañ taxawaayam his excellence yi mu ngi taxaw ci light bi mhm. ku xam démb xam tey xam ne light bi moom am ah, wax dëgg yàlla ruq ruq yaati dëkk bi yëpp na ko loolu nag dañ koy ñaanal yàlla mu gën koo man eh, yàlla na sa jàmm yàgg his excellence ak li nga yéene ci réew mi yàlla mottali ko ci nu mu gën a gaawee ak gën a yomb mm. ak mboolem ku jàpp ci sa liggéey bi sa ministère yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ndax liggéey bi gën a yomb ndax bu réew mi jagee ñun ñëpp la jagal hmm. kon his excellence ñu ngi leen ndokkeel moom it mu jàpp ci suñu bi bu baax nag waaw ak ay soxnaam ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam baax a baax ay ca kooku ah. mooy euh, alaaji Cissé sama nijaay bopp ci <laughs> protocole ci Cissé Ngari Madamel honorable Sidi Ndiaye ko kenn du moom honorable di Ndiaye ñu ngi lay ndokkeel baax di la ñaanal jàmm yow lu bari am na solo waaw ku baax la waaw waaw bu ko defee rek euh, ñu sant gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi sonn ci ñun waxtu bu ne di jël say ay matériel di ñu jox bu ñu taxawee nag ci télé bi nag taxaw salu lu rafet nit ñoo ci jàpp suñu dërëm demu ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mhm. fu mu waay mënti ne waaye nag bi la yoon tey dañuy wax nag ci Mouhamed Euh, ci ki nga xamante moom mooy Kebekunda mm, mm, mm. euh, alaaji Kebe Kebe Njuga Ali borom Kebekunda textile mm-hmm. ay edu jëlal ma lii jëlal ma li nga xam ne jëlal ko moom dagg jëlal ma bi xeetu mbasin bu bu baax bu garanti bu am classe ëpp na li lu mu doon. nii la def. acam ah, dagg ko te xam nga ne daggul ñaari mètre. ndax lu mu am garaam bu am ci musóor gu yem ni sër waagaan am ci ñetti morso ba am ci kaala. kaala nga xam ne moo seen. la mu dagg du ñaari mètre. waaw na yoo bo no iñaano yan yàlla dafa la jàmm bu ma fa jógee nag xam nga ku dagg xanaa borom si subi Mm-hmm. borom taabal bu yaatu bi nga xam ne bu daggee darab lay rek moo mën ci dagg moo mën ci dagg de ba mu def ci loxo bi sa waagaan moo ma jaaxal lii ah feeling la waaw loolu ci ah, xeetu xeetu ñaw yi la bokk muy bu sa bu sa création rek borom borom ngara moom saa yu daggee rek ngeen xam ne dagg na tegal leen ma ndomba Kébécounda textile ci piis bi ngeen tegal ma ndomba bu sa création ci ñaw bi ngeen waajal seen bopp nag ci korité gi ndax ñetti morceau yi ak garambu bi yi baax na de ngeen sol ko ànd ak alaaji dem ziyaare ji dafay dee dafay mm-hmm. ci lu ko gën amut lu ko gën amul waaw waaw balaa may dem na ma ñëw ci dàll bi gis ngeen dàll bi Mouhamed Haidara place yu es a wàcce waagaan ah? bi ca rax la waa li waaw dafa rafet dafa am classe nii la ma def nag te carton ba nag mu ngay door a wàcc ma maa ko a jël ndeysaan waaw Ousseynou Gueye moo ma jox ceen ma takk Ousseynou waaw waaw sa sa rakk ji su ma rakk bopp ji waaw gis nga Assane ah gis nga joxoon na ma fi montor bu rafet nag waaw waaw ceen bi jaaru baaraam bi njara bi jaaru noppa yi jaaru bi ak baaraam lépp ñu Ousseynou Ousseynou daa ne ma solal lu la neex defal fii ba korité ga loo sol maa la koy jox man ko yaa mën am na ci solo waa State House ñu ngi leen naan dokkeel baax rawatina nag soldaar ya fa nekk ki nga xam ne moom mooy Euh, ki nga xam ne moom mooy euh, RSM Sarr mm. ñu ngi laa nuyu bu baax ak mboolem takk der yi fa nekk yëpp di ñaanal jàmm ak salaam te ñuy béggee bu baax dajee naa woon nag moom de mu lay wër ne la bëgg a waaw non moom kay ah, koy baab ni ku ma arrêté yóbbu ma State House mu nekk lu am solo man lay béggee baax Ibrahima eh, eh, eh, kii ki nga xam ne moom mooy ki kii Cissé Omar Cissé ca pastu kër ay waaw koor gi jàppul ma nànk sax daf may bëgg a rey kay Omar Cissé <laughs> ma ngi lay ndokkeel ba di la ñaanal jàmm. ay saboté waagaan lay gëna ñawal mu ko bossam lay xoti ah waaye yalla la dimbale. ñawal na ma dé wa manit ñawal na ma dé musa ñawal nga ma dé Busa ñawal nga ma ah. busa ñawal nga ma. ci yaru koor wi. ma la wax li ndokkeel la war na ma buso création. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi di bu yeewoo samar yi